professeur fari Silate Ka ñu ngi lay nuyu. ñu am mbégte dalalaat la ci matinalu Rewmi FM yow yaay njiital section sénégalaise bu association Tabital Pulaagu nekk tamit vice président bu section internationale bi ñu dalal la tey nag ngir waxtaanee xew-xew bu doy waar amoon dimanche bi ñu weesu euh, ca Tasset euh, ci euh, région bu Thiès muy xeex bu doxoon diggante benn sàmm ak benn baykat loolu mujjee dépasé xëy na. xeex yi ñu tàmmoon di gis ndax euh, am na lu ci xew ba tax mu euh, fàttali la euh, coowal Mali gi ni mu tàmbalee est-ce que mën nga ñëwaat ci xew-xew boobu ak justement tiitaange bi nga ci am. jërëjëf Fatou xam nga lu ma ci wax du sax li béykat jàppante ak samaka kooku moom yàgg na yàgg na feneen. Mhm. jeexagul léegi. waaye amoon na ay sart sax yi xam ne ñun ci suñu aada ak suñuy sart réew moom lañ ko doon réglé xayma yàq bi borom fay extra extra yooyu yàgg na fi waaye li bees ci taset mooy lii nit ñi nga xam ne ñooy béy béykatu euh, dëkk boobu tudd Kër Njoogu Njaay te defe naa ne kii jàppante ak euh, sàmmkat bi dëkk fa ñoom ñoom mobilisé wu daje dem jëndi essence ataset jëndi essence inflammable pour dem dellu foofu ci dëkku pël yi ak euh, ñooy sàmmkat yi lakk ko lii mooy nouveauté bi hmm. musul am ci Sénégal hmm. intention boobu yàlla moo ci tuur ndox mu sedd yàlla moo ci def jàmm hmm. bi ñuy avertir gendarmerie nationale et forces de défense et de sécurité ñu ñëw ci teel régler loolu parce que yàlla moo def sax bi ñuy ñëw bi gendarmerie di ñëw parce que ñoom am parfois soo leen wooyee duñu gaaw a ñëw parce que mooy fekk ñii la jënd nañ ensemble ba di dugg ci kër pël yi semence je bi ñuy ñëw gendarmerie agsi fekk ñu ngi mer fas yéene rek dal ci ñële te fekk ñële itam wante nañ ba daje ñu bari suñu daje woon dee ñuy dee dinañ bari lool te jarul te suñ ko defee ba pare nag danañ taal lu bëri ci Sénégal te xamuñ ko parce que nit yi lii xew Mali moom dañ ko yëg fii xam nag yaa ngi fàttaliku def naa fi émission ak jàkkaarloo fat naa date bi. Mhm. daaw la ci bi ci affaire Mali. Mhm. am journaliste bu ma question mu ne waaw professeur la jàpp nga ne loolu ak suñu cousinage relation de cousinage ak suñu jàmm ji fi nekk ak suñu euh, ñaar yu baax yi suñu sëriñ yeeg yooyu est-ce que mën na am fii ma ne ma ne leen seytaane mën na am fu ñaan ñu ngi ñaan yàlla mu bañ a am fi waaye mën a fi am kay parce que am na nit ñu amul xel ba léegi ñu ngi dese ay affaire xeet affaire xeet nag réew bu ko doxee tas xeet yi ñooy brique yi ñoo fabriqué ñoo brique xeet yi ñooy defar réew mi par exemple soo jëlee Sénégal léegi soo jëlee pël joola mandeng wolof séeréer et cetera yooyu ay brique la ñoom c'est dans cette diversité ci uute boobu la ñu tabaxee unité nationale ay su fekkee ne nag am na ay conflit ethnicisé xeex am rek nga def ko ethnie ñaari nit xeex nañ gaañante nañ dem nañ hôpital ñu ngi leen di faj mais su benn dëkk jëlee décision ñëw taal beneen dëkk bi kooku ëpp na dayo Euh, mais juste pour euh, professeur nan la ñuy yegsee ci ci ci niveau boobu ndax wax nga ko sànq pël ak euh, sàmmkat di jàppante loolu yàgg na fi te jugagu fi ndax ñoo dëkk mais li tax ñële jug ba dem ndax taali beneen dëkk bi loolu quand doy na waar ci sa xalaat nan lañu ñuy yegsee ci niveau bii nii ah man de liñ ma ci wax de moment foofu tase mais dama dama leen ñoom woo téléphone ma koy wuyu leen ñu décrire ma yëpp ñoom ñoom ñu seede amul dara lu dul ñaari nit ñi xeex nañ fële ci tool yi am ñetteelu nit mi nga xam ne moom itam sàmmkat la atte leen gaañul sax ci loxo kooku c'est du vérifiable au l'hôpital de Thiès ñu yóbbu ñaar ñu fekk sono nañ gaañu nañ gaañu métti parce que borom tool bi amoon na jaas ba jëkk sax caw jaas borom borom euh, kële itam ki duggoon ci wax ji parce que dafa fekk borom tool ji di saaga ndey di saaga xale bi àndaloon ak ak ak yi def na wala dafi romb di moom ñu xamal naka dañuy def ba ñu jàppan di ko di ko saag te xale bu ndaw la mu laaj lu tax mu koy saaga kële nekk man tax di moytul dinaa soo ma fekkee fa nga nekk dinaa def nii def naa bi ñu xeexee ba pare ba ñu gaañante ñu yóbbu leen hôpital foofu la ñu jàppoon bi jeex na suñu ku nekk def sa certificat médical porte plainte comme mais li tax nag ñëlee dem jëli essence ba ci ndara kam pour dem taal euh, kër pël yi kooku mu ñëw rek ñoo xam peut-être peut-être xëy na gendarmerie dina enquêter hmm. bu ko lu tax d'accord lu tax lu tax mu ñëw ci ci loolu pourquoi ak lan lay jëriñ ak ndax mën nañ ko léegi yow da nga jàpp ne lii xëy na bu amoon wala buñ ci jugul teel mën naa jur la mel ni la xew ca Mali ma am nga lu ca ci Mali. Mm. dañ ko dañ ko taf ci Afrique djihadisme ak yooyu. waaw mais rey rey rek la. Mm-hmm. bi dozo yi di rey pël yi ba affaire jihad parce que mosoo dégg fu ñu xeex Amadou Koufa am na ñoo xam ne bëgguma ko sax wax bi dogon yi di rey pël yi fekk armée malienne jaar na ñaari fan ñett désarmé village bi kooku c'est pas du léegi nag loolu yàq na Mali yaxeet ba làmb léegi Burkina Faso ñu wut ay ministre d'état ay collègue léegi xaw ma lan ñu wut ay ministre dogo dem na ba Niger kooku ñaan nañu yàlla moo am Sénégal yàlla nañu yàlla ah mais su fekkee ne léegi communauté wala groupe nit mun na jël intention décision fas yéene dem rëy wala tas wala lakk benn dëkk bi nga xam ne ñu ñu ñu ko taf ci turu xeet nañu dem lakk kër pël ji ñu jeex kooku lu bees ci Sénégal mosu fi am. te su amoon nga gis fi leneen maa la ko wax. Mhm. fekk su amoon nga gis Sénégal yëngu bu baax a baax. kooku kooku amul sax war a werante dafa doy. Mhm. léegi gendarmerie ñëw na dakkal li naroon am euh, alhamdulilah ba jotut a euh, sotti mais mhm. lan nga jàpp ni kilifa yi war nañ ko def ndax dara euh, wérul ne xëy na mënul jur leneen coow li mënul continuer lan la ñu war a def ci sa xalaat yow. ci sama xalaat bu gàtt nguur gi dafa war a jublu ci suuf si benn question suuf suñ ko réglul Sénégal. mu ngi mel ne dangay bay benn benn benn gaañ gaañ muy nëb rek ba su tasee nag mu bari tuuti c'est il faut nguur gi taxaw ci rapidement ci la question foncière nationale. un de deux le code pastoral xam nga Sénégal pays sahélien sàmm ak mbéy mooy ñaari sànq tànk secteur primaire napp nekk ci ñetteel bi ñetteel facteur bi au niveau de le bord la mer wala au niveau fluvial mais les deux ñaari tànk aux acteurs ruraux primaire mooy sàmm ak mbéy kon sàmm dañ ni ñu sartalee mbéy sartal napp sartal eaux et forêt sartal lu ne nañ sartal sàmm jiitam ngir xeex yi wàññeeku parce que jur moom su rëccee rek rek rek dem ci tool kooku kooku du fi dañ ba faw waaye su ne tool yi par exemple comme ni ni li xaw tasi xew na feneen fii xew na suñu bambi du daaw rek la benn benn taaliba euh, euh, benn sëriñ Euh, fekk si benn berger pël bi nga xam ne romb rek ak juróom mu ne ko waroo sa nag yi waruñ romb tool bi mu fetal ko foofu dossier baa ngi ci justice foofu ci Bambilor tant que réglé wuñu lool te te te tool yi parfois kenn du ko ñàkk te kenn du fa nekk te toolu noor sax man gis naa cas man jolof jolof la gis naa ay ay nit jàpp ay daara ñuy jàpp ay nag noor noor jàpp yeew bu borom ñëw mu nekk day fay su ay lu tax ñu ne parce que nag yi suñ si tàmmee su nawetee dañuy yàq tool kooku ay wax donc kooku il faut ñu sarti yàlla code pastoral bi nga xam ne mu ngi ci tiroir yi wala mu ngi ci bi ba tey génnul lu leer amu ci loolu état daf ci war a si yàlla ànd nag daañu laaj ñëpp yi nga xam ne jàmm lañu dàmm Sénégal ñu taxaw ci ki c'est un incident yàlla def ni jàmm c'est pas tellement grave mhm. mais ça peut créer mun na créer lu gën a grave bu amoon day garaaw loolu sax su amoon bu ñaan ma ko yàlla parce que nit yi lu xew Mali mhm. ñoom mu ci seen xol mu ngi ci seen xel mhm. ku fi taal dëkk bi yaa tooñ. te dinaa la fekk ba sa biir lal. Mhm. Mhm. léegi Tapital Pulagu euh, ràññee woon nañu ko lool ci coowal Mali gi laata sax muy yegg si fii peut-être yéen a ñoom Alioune ndax ñeneen yéen a ngi doon def euh, médiation di dox tànk jàmm. est que lii xew taset da ngeen a nar a sol seen dàll également ànd ak ay kilifa pour fagaru ci xëy na leneen lu mun a xew foofu ëllëg. fas nañ ko yéene itam alerte nguur gi ak les autorités compétentes. daañu contacter ñoom Alioune Tine ak ñeneen ak ONG yi ñu wax ko fi ñu wax ko fi mu war a waxee parce que ñun wax wi rek pour Tassette rek Tassette c'est un exemple seulement mm-hmm. malheureux mais ñun du duñu bëgg xam nga suñu réew je dis toujours que Sénégal c'est un petit pays petit grand pays ou un grand petit pays je ne sais pas mm-hmm. en bëgg nañ nekk ci parce que yaa keroog rek ñu ngi félicité Afrique ñu ngi gere Covid 19 bi mm-hmm. ñun dañu am ndam bëgguñ ko ko yàq bëggoon na ay groupe inconscient wala ay groupe yi nga xam ne ils ont ils ont des idées rétrogrades yàqal ñu suñu jàmm dégg nga jàmm ci la lépp donc ñun daan ci taxaw daf déplacé pour ngir jàmm am ci lii ñëw parce que lii jàmm am na ci déjà gendarmerie générale am mhm. def tuuruwul xeex bi amul mhm. waaye pour ëllëg baax nañu waxtaan ak kilifa yi kilifa diine yi mhm. kilifa aada yi autorité politique gouvernementale yi pour rek ñaax leen ñu jéem a seetaat ñaari point yooyu mhm. benn la question foncière au niveau national war nañ ko réglé war nañ war nañ ci jublu boobu même su réglé wul benn bes war mhm. nañ ci jublu parce que fi mu nekk nii à Richard Toll am na ay problème mhm. Casamance am na ay problème xam naa ko j'ai beaucoup de dossiers sur ces là euh, et puis la question de du code pastoral ñu def ci lu leer yi nga xam ne ku nekk xam nga fi mu war parce que toujours day am bagarre par exemple pël yi suñu màngee nii les ce que j'appelle am mhm. pël ñoo ci gën a bari mhm. suñu màngee dem sud toujours dañu am ay problème parfois zone Tamba ak yooyu mhm. ñun Jolof séeréer yi dañuy jóge Siin actuellement ñu ngi suñu ñu ngi ñu rek la dégg am na ay séeréer yu xaw a jàppandi foofu suma doom moom dama mag ñi ma ñoo bokk ndey ak baay dañu buntu këram bëgg fa def kii ba ñu bëgg jàppante heureusement que unité bi xaw ma kan ma ci joué rôle yi mujj joge foofu dem feneen. Mhm. donc tout ça c' est des choses qu'il faut régler au niveau territorial au niveau euh, de l' état. Mhm. ñu xam ne Sénégal am ay charte yu leer itam conflit su amee buñ ci ethnicisé mhm. nañu seet ñu jàppante rek ñu xam ne ñaari citoyen ñoo jàppante wala ñaari groupe citoyen ñoo jàppante mhm. wala béykat ak sàmmkat moo jàppante buñ ko wax mhm. pël ak wolof buñ ko wax pël séeréer ak pël wala séeréer ak wolof mhm. suñ ko waxee noonu day yàq lu bëri parce que koo laal soo demee xeet soo demee demee dox li nu xeet boo laal xeet laal ba biir laal fekk la foofu kenn defante ko kenn ragalul kenn ah donc nit yi dañu war a moytu ndekku ci affaire toog rek nga defe ne yow yaa moom réew mi ñu def loolu neex di wax loolu mm-hmm. Ka Fary Silène Ka ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi FM yow yaay président euh, section sénégalaise bu association Tabital Pulaagu nekk aussi vice président bu section international bi jiite aussi laboratoire linguistique bu IFAN ci université euh, Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jërëjëf professeur. manager